tuddati sax baal leen ma àq gars yi pare ngeen ah asalaamaaleykum wa rahmatulah waa waa Malika Malika Kër Masar ah Buun Yëmbal Ballu Baay Ñaax montagne Mbëbës montagne Mbëbës ah benn baraak ba ba ngay dem Caaroy Gaarak ah cité Sonatel kon ñu ngi nuyu waa banlieue bi yëpp yëpp yëpp tey nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy biir Malika xolu Malika lañ nekk certificat général Malika mun nekk mbër bi nga xam ne nag yaakaar naa ne pël bu rafet dimanche le 25 bésu Noël yàgg naa ay bés yu mag ñoo ci daan am Baba Diaw nag cam production indiwaat ci bés bu rëy gala moom nag moo war cee dajeeg Boursine mbër mu xat xat xat la Boursine la la la général am dimanche. bëgg nañ la. Babacar ñu ngi lay fay. ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi. di gërëm sunuy waajur. Mhm. di nuyu waa Malika yëmbal benn buun Kër Massar Alba ñaax montagne Mbëbës. ñàgg ñàqorop daaru cubb Tiawoon Pël jaxaay 1 jaxaay 2 di nuyu waa Malika cité Sonatel fii ñu taxaw nii di nuyu suma waa écrit di nuyu képp ku fi ñëw tey di ma jàppale bàyyi sa temps ndax temps dafa jafe. képp ku ñëw bàyyi sa yite di ma jàppale maa ngi lay sant di la gërëm. di wax ne affaire yi metti na comprendre nga. mais amaana lu yëngu lu nekk rek la ko yëngal ko ëpp doole. lii lépp xam nga képp kuñ fi buux te tey ñu ko ñu ngi koy jébalu. ndax képp ku fi ñëw yaakaar naa defar moo ko tax a jóg ñu mën a bàyyi xel rek te xam ni gaa yi nga xam ni ñoo topp suñ ginnaaw di defar defaral leen tax yi képp ku nekk ànd ak mbër ñëw bàyyi sa yite yëpp nekk si ginnaawam couvrir di ko di ko taxaw amaana defar nga bëgg mhm. bu loolu weesoo képp kuy mbër dagg sa yite ñëw fii bàyyi sa temps maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay mhm. nan la defalu ma defalu ma la lu tax nga war a bàyyi sa yite ñëw amaana ñi fi ñëw ñëpp dañoo baax mais maa ngi leen koy jégalu naan leen vraiment kontaan naa di rafetlu tamit teewaay bi fii gaa yëpp képp ku fi teew rek maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm te di la jox sa wàccuwaay di jégaluwaat nag di jégaluwaat ñëpp di jégaluwaat waa koñ bi di jégaluwaat su may soppe di jégaluwaat su may nit vraiment maa ngi jégalu ñëpp ndax bëgg dafa metti quoi mhm. yee man doon naa ñëw sa open press defe naa ne am naa bu ma fi mu jën ñëw maag pël bu rafet <laughs> ñoo fi ñëwandoo woon mais defe naa ne fa nga ko defee woon tolluwu ko nii bayaal ba mhm. mbooloo mi tolluwu ko nii mhm. mais tey mbooloo mi ma gis fii ay camion sax man camion ca ama laa ko fi jotoon gisee waaye camion yaay deuxième fois bu ma ko waat njëmbat ay njëmbat ay saret lu na gis naa ko fi tey jakarta moto yi lan lan sa diggante waa Malick ak ak ak ak waa secteur bi lu xew mbooloo mi tey. moom laa lay wax secteur yi ma la tuddal noonu carrière yi aw ma seen fay. mais loo def laa wax ba. fay gi kay wax bi lan nga leen wan ba tax ñu toppale nii. cër la rek. ndax làmb yaakaar naa lépp ci am ndama ci am defet match ni lépp ci am <laughs> mais hors làmb dañ koy dund ak ñoom bu dul làmb joxe cër wàccee suñu bopp respecté ñëpp mhm. mag ñu jox li mu moom xale ñu jox li mu moom mhm. loolu képp la di nuyu tamit sama gars yi nga xam ne ñoo nekk suma ginnaaw ndax benn lam kase du yëngu nee naa la doomu aadama des fois da ngay toll foo xam ne boo geesoo gisoo kenn rek day metti mais man sant naa yàlla ndax tollu ma fu may amee ba fay ñàqee mais ñi ma àndal mention spéciale ndax taxawu nañ ma niñ ma war a taxawoo tey ku xool li fi ñëw xam ne tey jii ñi fi ñëw amaana mooy loolu quoi mais du ma def lu dul di leen sant te bu làmb jaa ngeen di gis du gën a yéeme camion yi yu bëri ñëwuñu wallahi azim yu bëri ñëwuñu am na yeneen yi war a ñëw 16 mètres yi daa war a ñëw maa la wax loolu 16 mètres yi daa war a ñëw ay benn ay benn non baax na waaye benn yi moom bu ñu ñëwee lu coow li bëri bëri bëri bëri bëri bëri ak lu sufle yi bay bëri fecc meg tëgg maak wayya day am moment boo xam ne nag yow général Malika ak Bour bu bawal képp ca gannoof ga loxo yi war a jóg ak arbitre bi moo leen di ñett ñetteel defe naa suma jumul ak ñaari siisam ca côté ya ñoom ji li ñee wax rek la ñuy mën di def bu keroogee ku yiy dem nga jël mbër moo xam ne naa naan léegi neexul deret Bour Sine ñi mën a xeex te ñi mën a bëri waaw Bour Sine nu def lu dul di ko nuyu ndax adversaire la comme adversaire yëpp yaakaar naa man tollu ma fu ma adversaire di dépassé mbër mu ma respecté la nag di ko ñaanal jàmm di ñaanal suma bopp jàmm làmb ji yaakaar naa sàkkuwuma ci lu yomb ndax bu doon lu yomb li gën a yomb làmb gi fi te hmm. tey ñi ma topp nii toppewu ñu ma lu yomb buñ xamoon ni ci lu yomb laay dox amaana duñ bàyyi seen temps di fi ñëw mhm. kon moom maanaam dama koy ñaanal jàmm rek ba bis ba aw ma leneen lu ma koy wax fi mu toll nii tolatuñ ci wax jëf rek la des mhm. waaw di ko ñaanal jàmm laay def ba bis ba mais waxtaanu buur itam wax xam nga fi moom waxanu fende ñun bu làmb ja waaw bu weexoon benn maa ngi koy ñaan yàlla na ñëw weex fukk te yàlla tax loolu laa koy ñaan bursin lu mu weex doyul barki yi ah. rasulillahi sa weex boo ko wàññee baalu ma la ko man ah. général maa ngi lay ñaanal yàlla na nga gën a weex te xam ni man bu yokkul du wàññeeku mais bu weexee xat mbaa dina baax ci man bëre naa ba ba toll fii nii mosuma dem ardo te laa mu jot damaa bëgg ñu ñu dem ci fépp. ah da ngaa gis sama kanam cicatrice am na ñoo xam dañ naan français la te du ma ragal. Ah. mais dajee guma ku war a mën a suul tànk yi ñu dëggal suñu bopp. Ah. samp jaaga. moom suul katu tànk la de. waa man loolu laa bëgg bu bis ba nañ suul suñu tànk. ngeen lante bu ba bis ba nee naa la man fi mu toll nii lu ma wax rek dañ naan waxati naa instant bi a dese. mais kii dama ko dégg léegi Kara mhm. moom xam nga Kara moom moom mooy Kara rek moom. Mhm. moom nee na maanaam mbëri bawol yëpp. bawol bawol yi sax la yëpp rawatina mbër yi bu ñu nga def leen ci maanaam nga ñoom ñëpp nga daan leen. Kara doole mii ngay gis nii. suñu mag buñ jox cër la. waaw mais moom dañ koy yenu di yég moom ci diis ci diin yi. Kara mii. te foofu amul mbër mu ko ëpp. Kara mii da koy yenu di din dama koy yenu di yéeg din mu ngi nii laaj ko. dama koy yenu di yéeg din kon man du taxaw di waxal sama bopp ñoom xam nañ mais nag kullu mbër bu fi teew nuyoo bi dama koy teg moom ci loxoom ndax mooy seen mag. Ah. waaw. jili wala koy laaj. waaw. changé laaj na lu am solo de. beesal bi yeesal nga ci écrit beesal ci open press yi beesal ci général ji lu waral bees bees yi. waaw mais jëmm yi ma doon àndal beesul ñi ma doon àndal démb ak bërki démb ba tey ñoom laay àndal yaa ngi dégg. équipe Malika mbooloo bi ñoo fi teew ñoo feesal fii ñi fi ñëw ñii ñëpp ngay gis nii baa waa Malika la xam xam nga leen. waaw gis ngeen fi ñoom Bulldozer. waaw gis ñoom booy Malika. waaw kon taxali ko amul suñu diggante. comprendre nga. armée dañuy armée ñoom ñëpp ñun amuñu xaajaloo ñun foo ñu mësaan fekk ñuy ànd di booloo di entraînement munoo xàmmee ku nekk benn baraak ak ku nekk Malika. armée fan la nekk du benn baraak ñaata yoon nañu ànd di entraîné. ñeneen itam mooy loolu ñun famille lañ Malika benn baraak ñun ñëpp famille lañ dafa mel ni damaa jógee ci kër duggaat ci kër ba suba suba su ma bëggoon contacter Malika Mbooloo dama fay dem te Bulldozer dama ko war a may contact. lambam jim jëm ci combat bi te koy may ba mu neex. Hmm. on est ensemble ñun ñëpp on est famille. non du dara ay xale lañ dañuy liggéey. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom xeeb doole. ndax li ñu hmm. war a am amaguñ ko. sant naa yàlla ndax ñu ngi am xel mu dal te li ko waral mooy sumay nit ñoo dalal suma xel taxaw ma ci côté bépp chaque jour ñu ngi su ma ma toogee sax xaw a guddee ñu ne ma demal tëddi hmm. ñun lépp lu war ci làmb ji ñoom ñoo koy def ñoom ñooy jël seen xaalis di dugg ci gaay di dajale di mobiliser di def lu ne di bàyyi seen temps te loolu dafa jafe te koo fi gis tey responsable la. Hmm. din ya dama ñëwal fekk ma din ya suuf sax nañ ko yokk man man arène nationale ñaata weer laa fa def regroupement. foofu miin naa ko bu bëgg a jee yàggul miin naa bu baax. mais ni ngay tëbee ni ngay tëbee en tant que kii dama gis ngay tëb tëb yu metti mu mel ni da nga oyof eh déet waay. ma ah! dara. yàqaluma dara. Ah! su ma waree def dama koy def. mais kon yow actuellement ni athlète la boo xam ne yaa yaa moom sa yaram. buñ ma tegaloon dix boursines ma bëreeg ñoom. arène nationale fukki boursines. ma leen tegaloon fukki boursines ma bëreeg ñoom arène nationale. kon su ma la déggee keroog boo maanaam bés ba boo boo sañoon combat bi ngeen bëree ko bëreewaat bëreewaat bëreewaat bëreewaat. xam nga dama naan bëre Casamance ñu bëri xamuñu ak réalité bëre Casamance. waaw bëre Casamance boo waree bëre grand combat ñaari combat lay doon. boo ah. daanee première bi yaay yóbbu drapeau bi bu waa ji bëggee bëriwaat da ngeen di jóg ngeen bëriwaat mais bu làmb jaa bëre Casamance laa bëgg ñu bëri ko yaag bursin bëre Casamance daan ba pare ñëwaat ñëwaat bëriwaat <laughs> mooy jiili waaw waaw daa mën a xeex de. waa fët fët ji. su lamb jaa nii laay def su ma arrière benn tànk ñun su ma arrière benn tànk. waxal ak moom jël sama reliquat. moom jarul muy teg reliquat su ma la arrière benn tànk man tamit yabu ma waa Malika yëmbal benn baraak buun Kër Massar àll ba ñaax montagne mbëbës. yabu ma leen bay arrière Bour du <laughs> ma arrière xalaatuma loolu ah. Ah. li ma koy wax mooy du li may li may wax waaw du ma ci jug di ko wax bu amul jàmm amaana lii du am Bour Sine yàlla na la yàlla defal jàmm bala vingt cinq dimanche di ci des bëreetul yéen presse yen yéen ñëpp ngeen am jàmm ndax yéen bi sax waaw amuñu seen fay delloo presse en ligne presse en ligne waaw. voilà parce que ñoom ñooy dem fu metti fépp nag. billaay bu taree rek ñoom la. fuñ mës a dem fekkee fekk fekk ngeen ñu fa. ko wax nee naa leen mbër koo gërëmee presse bi. fii ñun kese di def te gisuñu leen wane woo ñu bëri duñ ko xam suñu koñ lay yem. mais jàpp naa ne bi ñun international lañ. waa diaspora bi ñu ngi seetaan kon nag yéen presse bi fi teew yëpp bàyyi seen Mm-hmm. presse en ligne bi yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. mais général lan moo tax nga bëgg a woo Bour Sine ci xeex bi. kon léegi nañ bëre bu fekkee bëggul xeex nañ bëre. waaw bataille psychologique. man nag wuy ma sama lamb yëpp damay xeex damay bëre. Euh. waaw bu lamb jaa léegi li gën a sedd mooy. Mm. lu mu bëgg ma fekk ko ci léegi moom na diriger moom lu ma woo ma fekk ko ci. fu mu baat nga coupe. fu mu baat rek ma waaw. am na solo léegi nañ xeex ndax bu ñu nee damaa xeex ñu ne bëre laa bëgg yow yaa koy téye mu ngi lay def man waaw yaakaar naa Bour man làmb boole moo tax may soog a wax ci moom quoi amaana su ma toogee di wax ci Bour Sine la may aportel man ku ma xam ci làmb jëf nga ma xamee fa laa ma sa toog minimiser mbër wala ma wax ci mbër lu ñaaw man ci jëf lañ ma xamee kon nag Bour Sine yow yaa yor sa làmmiñ bu rëy rek di wax mais law jëlal loolu sa jëpp sa baax la naa la may loolu waxal lu la saf mais ngir yàlla li ma lay ñaan maag yow du nee nga damaa bëri wax te ñëpp xam nañu yaa bëri wax bu lamb ja nañ xam maag yow kan moo bari wax. bu lamb ja nañ xam ku bëri wax. waaw rafet lu mu laaj dañ koy def xam nga tey jii du ma jël li ngeen di def sama bopp bi naan teel teel ba lamb ja ma ñëw taxaw mu may dóor may arrière du ma ko def. bu dëggalee boppam ma dëgël sama bopp bu xoolee leneen nag ma def li ma war. nga def li la war naan damay teey wala damay nangam. waa dañuy somb tànk yi xeex bëre. Hmm. def samp jaaga waaw joxal jóob waaw moom day rappel gauche dóor droite loolu fatal ma foofu moom li gaay naan fatal ma foofu bu làmb jaa na def noonu fatal ma foofu doo ko arrièral doo ko arrièral doo na ñëw voilà léegi nag xam nga comme guddi na léegi dañ lay bàyyi nga tàggoo looy promettre amateur yi dimanche ci ambiance ak ak le promoteur santoon naa leen dama leen di santaat ambiance du ko ma ko du ma ko yem ak suma morom ci làmb ku ma maaseel jamono fii ci làmb maal dàq ambiance loolu la yàlla dogal mm. bi ci des nag mooy kuy xaar làmb ju neex làmb ju metti waaw lamb ju tàng mm-hmm. sama digganteeg Boursin di nga ko gis bu sooba yàlla mm-hmm. yàlla na suñu boroom defal wér mm-hmm. defal ma wér defal ko wér defal ko jàmm defal ma jàmm ba bis ba di ñaan suñu borom defal ñu ndam lu gën si ñun bu loolu weesoo nag di sant ñi fi teew képp ku fi teew sant naa la gërëm la chef de quartier cité Sonatel bi ñu ngi koy sant di ko gërëm

Massar lañ bokk. maire Kër Massar monsieur le maire ñu ngi lay woo naan la lamb ji sa lamb la. Kër Massar kuy maire bi sax. monsieur le maire bi nu mu tudd di sax. Ah. Adama Sarr. non non samay nit ñëwee la wax lu ma war a def samay nit dem defal ma ko comprendre nga mais ñu ngi woo ci lamb ji rek naan leen lamb ji seen lamb la quoi vraiment. di santaat suma gars yëpp. kontaan ci ma damay juum suma gars yi nekk si diaspora bi. di ma suivre ñoom it leen di sant.